maa ngi gaaral kàddu yile jëmale ko ci képp koo xam ne danga bëgg Ousmane Sonko wala danga ko sopp wala danga gëm lii muy woote nga xam ne man bokkuma ci ñu ko gëm dama bëgg ngeen bàyyi xel lu yomb mooy ne lii Ousmane Sonko di woote du lu yomb ci plusieurs raisons te su demee ba nga xam ne dëgg la ci moom sax ñi koy war a àndal du bari Ousmane Sonko. bi nga xam ne waay juri jàmbur la jëkkëru jàmbur la nijaayu jàmbur la doomi jàmbur la yàlla na yàlla defal ko jàmm fu mu munti nekk ci àddina defal ko sutura ak naataange man musuma yëkkati kàddu jëmee ci kooku ndax waruma xaw ma ko Ousmane Sonko bi nga xam ne nag mooy politique tey ci kooku laay wax te ci kooku laa mus di wax balaa may avancé damay bëgg préciser que ni ma ko contré woon démb noonu laa ko contré tey ni ma ko gëmulee woon démb noonu laa ko ñàkk gëmee tey kii moom dama bëggum leer balaa may avancer contre Ousmane Sonko politiquement warul tax nga bëgg mu génn pour toujours pourquoi parce que opposition baax na ci réew mi te ku mel ni Sonko yàq na lu bari ci réew mi waaye ku mel ni Sonko defar na lu bari ci réew ndax yee na ndaw ñu bari ci wàllum politique. bien vrai que daf leen yee ba pare sàngaat leen ne nelaw leen mais yee na leen politique attention bi mu am ci réew mi gëj nga koo am ba lu xew ñu jël ko traité ko ci banc public bi loolu jafe na yombul pour mu am avant Sonko donc bëgguma lëg bi du tee nga ne nopp ya dañoo gudd. Euh, bi loolu passé Ousmane Sonko dafa am ñu mu seqal politique bi bi muy jug ñun ñëpp kenn gëmu ko ci kenn bëggut ko ci kenn àndut ak moom ñëpp a ko wan ginnaaw muy ràmpe ak ñu kenn xamul mu créé ay nitam loolu jalooreem la bul jéem a tàgg nit ba fabriquer ko lu mu defut waaye bul bañ nit ba mu def mu am mérite nga bañ ko ça pas normal moom Sonko dafa am mérite bu mu am dafa créer nitam bi ko yàlla dimbali ba def ko ci xoli lenn ci jaam yi ñu bëgg ko mu jaral leen lu bari communication jaar yoon nit ñi di ko wuyu politiciens gëmul dara ndax dañ la nan politique amul ennemi pour toujours amul soppé pour toujours intérêt yu dajé rek ñu ànd la bu jeexee jeex ah ñom ñëpp ñu dem ba xamné Sonko mi comme population Sénégal ndaw ñi ci ëpp ndaw ñi jox nañ ko bopp ñu daw wiiri ji ci ginnaawam. mu def ay gestes yu rafet nag moom Sonko gestes yi mooy jël xalifa Sall jiital jox Barthélemy cër ba ay Aïdara mi nga xam ne warutoon a nekk sax conseil maire nekk na maire ci darajaay Ousmane Sonko ñuñ xamutoon ñu tekki dara ñu xaw a tekki dara bay laaj ay maire ak leneen ci darajaay Ousmane Sonko politiquement lay waxee. te kenn ci ñoom gëmut ko bëggut ko billahi wallahi tallahi ñu ci bari ñuy ànd ak Ousmane Sonko boo déggoon seen seen appel sen sen sen waxum téléphone ak seeni audio bu Bara ndjay be gëna a sedd xam nga Bara ndjay dafa xass Ousmane Sonko tuutil ko doyo dal ko xeeb ko analyse ak xasta du ben. am na ñu gën a fort Bara Ndiaye politiquement la ñuy wax Sonko weñ wu ci dal dee. am na ñu ko jege ba lépp lu muy def dana ca diisoog ñoom gëmuñ ko virgule te politiquement Sonko surux mooy seen doole ñoom su fëlee rek dañuy topp ci am te bëgguñ ko parewuñ ko mais awalan la ca jiitu sa mooy dañoo bokkut politique kii socialiste la kii libéralisme Sonko révolutionnaire moom ngeen ko tuddee. bokkuñu gis-gis loolu noonu jur ba biir Yewwi Askan Wi maanaam mënatuñoo waxtaanee sutura lu mooy ne buñ koy waxtaanee balaa jug nguur gi jot ko Sonko mënul wax lu nguur gi dul yëg minit amul te am na nu muy jëflante moom ñoo ñu gedd te Sénégal mooy réew moo xam ne dañ lay tooñ di la ñoppati doo ñemee wax dangay ragal ñu ne ak a fitna ak a nàngam te politique dafa metti li ci biir ku ci duggul doo ko xam wallaay Sonko mooy nit ki gën a sonn ci Sénégal actuellement te gis nga yeewi askan bu ñu amee cinquante quatre députés à cause de Sonko la. Khalifa Sall buñ koy amnistie du and ak sonk nako a ah biñ ma jappé bama ma xawa xewi politiquement yow la ma dimbali amnistie neen ma way damay pousse sa candidature ngir yow la réew mu bëgg Khalifa Sall du def lool suma waji mom batali Barthélémy Dias nante bi leeral na bopam ca fajar man bat la bëgg nee na 2024 monsieur Khalifa ababakar Sall le tudd insiste ci ñaar yoon xamoon na ne dineen amnistie xalifa xam na ne dana bokk te est-ce que xamul ne sonk mi pare neen ci moom du bokk est-ce que leeruma ñoom ñëpp bokkuñu yoon benn noon leen am mooy Macky Sall moo tax ñu dajee ànd ba mënul sincère donc sonk den koy or politiquement wàññi dooleem te booy sonko yu bari dañu jàpp Yewwi Askan benn la mais ñoom ñëpp ñu bari dem neen baat ñu bari wiiri neen dem neen fii dem neen fële dooleel ñi ko jege mu di ko xam te mënu koo yuuxu ndax ku joteeg ñëpp ci Sénégal ñëpp mën neen la tooñ waaye den naan yow yaa tooñ sénégalais mën neen la màtt nga yuuxu ñu màttaat la nga yuuxu ñu màttaat ñu ne kii dafa bëgg yuuxu quoi mais lijjantiwu ñaata yoon leen la leen màtt encore une fois yalla bu aduna yag ba ma dem ci gomu, mënuma ko ndax man mais dama len di analyser lu am solo pour ngeen dégg bi lolu passé def defkatu ñaawteef bu nek ci Sénégal muy saagakatu ndey yi muy serigne su bon su meuna fensi arnaqué nit ñi ku ci melni même Adamo mi saga nday nit nga xam ne tekkiwut lu mooy wane taat ñoom ñëpp suñu bëggee relevant suñu bëggee di am lu leen di couvrir dañuy ñëw ne Sonko la ñu ñoom ñëpp bu ñu bëggee ku leen couvrir dañuy ñëw ne Sonko lañu ñu àndal defee ko fond de commerce ngi gis koo xam ne dafay ñëw naan man maay marabu de sonk te amul numéro du ko defal dara di tuddo tuddoo ndax macha allah yalla may na bayre dugal nako ko ci xol yi ñi ko bëgg dof den ci mom gis nga lu melni mo waral da ngay gis ku ben nafaq bu xamul dara ci seigne touba ñëw naan la eh, bamba kenn du mom seigne bamba amul morom seigne bamba nangam nangam fekk la ngay wax dara du ci deug da nga xamne ne muriti dañoo bëgg seigne bamba nga bëgg ci ñom dara bo leen ñaané duñ la may ndax goor day liggé nga jaar ci kañ bëgg noyal seen xol mu jox la loolu lañu ñu transformé ci sonk mais koo ci wéetal day saaga ndeyam benn ñaar ñu ne la ah moo nangamtaan moo nangam xale bi. soo waxee ñu ne la ah moom du nii moom du naa donc su fekkee ne ñi muy politique ndooral kenn bëggut ko ci ñoom ñëpp intérêt tax ñu ànd ak moom bis buñ jekkoo daw. ñi nga xam ne ñooy mel ni ñi koy défendre ci réseaux sociaux ñii seen site la ñu bëgg ñu dund ñii tur leen ci bëgg ñii de nekk ci ay arnaque ñu bëggu ko leen di défendre ñu daw làqatoo ko su boobaa Sonko dafay perte te perte bi ñi ànd ak moom ñoo ko perte ba pare utiliser ko foofu la situation Ousmane Sonko doon Manglen ngi leen koy wax di leen ko wax di leen ko waxati Ousmane Tunkara mi ngeen foog ne Ousmane Sonko la bëgg wallahi suma wallahi élément contre Sonko la réew mi dencee bokk xam ci lu bari élément contre Sonko la mais dafa am luñ koy doy moom du pour mu dem di xalamal Macky Sall de déedéet soxlaawuñ ko loolu pour muy damate ñiy ànd ak Sonko la suy wax ñu jox ko yenn information day dem ba affaire bi jege mu xaw a mel ni ku jàmm sonko mais du musa dem ci Macky Sall am na ñeneen ñu ngeen gis ngeen foog ne niti sonko leen wallahi duñ niti sonko en anglais ñu ngi leen di oyee spy mooy espionnage xaw ma noonu leen noonu loolu donc dama bëgg ngeen xam ni yéen waa Pastef yu sérieux waxuma ñi nga xam ne dañuy jël yaayi jàmbur di saaga ngir sonk waxuma ñooñu waxuma ñi nga xam ne dañuy jël bàyyi jàmbur di saaga waxuma ñooñu maa ngi wax ñi nga xam ne dañuy xëy di jàngi di liggéey fonku sen wajuri fonku wajuri jambur, bëgg Ousmane Sonko sincèrement gëm ko ngir lamuy wax doyna len man ñooñu lay waxal nen mbir soko bëgge dang koy protéger xolal lu mel ni ojo bara Baara nga sétane ko gis ko xam ne du dëgg nga bàyyi mu sedd parce que lan mu ngi waxal Sonko lu baax yeneen audio dina génn yeneen audio dina génn yeneen appel dina génn parce que réew mi moo toll foo xam ne koy waxal mu ngi lay enregistré ngir preuve ak santaas ëllëg koo ci wax bu koy nettali day bëgg a wane ne yaa ko waxoon dalay wan say audio ak say preuve Ousmane Sonko su ngeen gëmee ne dafa sell ba ngeen koy wooyee mu sell mi fii ku fi sell ànd ak ñu sell nit ku sel day and ku sel yonent bi mu nekké mursal dafa am ay sahaba serigne buñ fi tuddu na ay nit ñu bax ñuko wër lan mo tax sonko ngeen gëm ne dafa sel ta ay kat wër luy problème andan dor dafa am solo na bo bëggee réew bëgg nit ñi wóolu la ci réew mi dafa am ño wara and rek noy doxé Yen wa Pastef lay wax yeen ñi tuddé seen bop ay patriote protéger len li ngeen am su ngeen mëne di dem ci live Cheikh Ahmed Cissé diko daggal daggali saaga ndey ak saga bay te musta saga ndey Sonk defut lu moy wax khalatam jangat comme niko di defee wa nan ngeen di def ak ki nga xamne mom da fay ñew di utiliser image sonko di dugg melni patriote di dugal ay business am muy dox te bëggul sonko te bu démé jëw ko ci ron kooku mom da ngeen koy bay du ngeen ko wax dara parce que wane na ne fi la bok mais man mi suur alalu sonko turam sur darajam sur maqamam sur leppam bëggaluma ko dara soxlaaluma ko dara man mom fitna la bandila say say la baxuma dama bon dama wara de dama wara te dikas mais ñi ñew di ut ci turu sonko ci daraja sonko ci maqamam ci bayrem ci ci ci turam ba pare di ko ci ron ñooñu mom du problème enfin yene ñan ak lan ngeen bëgg xana du dëgg ngeen bëgg dëgg kay soko bëgge sa kaw lay ñëkke bu len melni ku jaxan di saw yene toy rek bu ngeen pare yene wessu di

électeurs yi dafa am ñu ko moom dafa am ñu ko tax a jóg su ma wax ji nag mënuma wax lépp parce que mbirum nguur ak mbirum Sénégal xam lépp wax lépp yaa mujjee dugg rek waaye Ousmane Tounkara élément contre Sonko la am na ñu bari ñuy naan sonko sonko sonko dañoo jaaxle dañoo jaaxle rek amuñ fuñ jëm te xam ne kii yàlla may na ko may boo xam ne ku ko tudd nit ñi ñëw like sa vidéo yëkkati la nga ñëw pour sa intérêt en fait kan moo gëm sonko ak kan moo ko bëgg kan la sonko jaral xaru xam-xam bu leer lay wax mais bul ma jéppi bañ ma ba dégloo wala nga dégloo ko xol kon doo jëriñu doo xam li ma bëgg a wax man nag alhamdulilahi rabbil alamin victime laa ci nguuru Macky Sall tooñ neen ma jël neen suma àq moom Macky Sall ak ministre de l'intérieur am ak procureur am waaye terewul moom laay jàppale ndax dama gëm ne moo gën ci réew yërëm naa sonko ndax xam naa fuñ koy iri ak fa muy mujj ak fam jëm ndax nit nit rek la mën a doon te waroo bañ doomi aadama waaye protéger leen sonko balaa weesu koo xam ne lu mu wax mu am bu waxee dañ cay bàyyi xel ñu ne bu ñu la doon rëdd ne ku ko romb dee jéggi ko te weddi ko waaye bul sa jaar moom sonko xam loolu moo mën nga di ko waxal bañ foog ne jege nga ko fekk du wax ak yow kenn lay jaarale sa kanam ndax xam na mbirum Pastef ak Sonko business la léegi boo bëggee nekk maire demal ci tele yi di yuuxu Sonko ba gars yi jot la la ñu dugal la ci liste nga dem boo bëggee nekk député jaareel noonu boo nekkee sëriñ nga bëgg sa mbir dox jaaral ci Sonko lii la yàlla dogal waaye gëm Sonko bëgg ko Sonko ñi ko gëm a ko bëgg yëpp doo leen di gis ci télé koo ci gis ci télé muy ratatati ci bopam la ne ak ku mën do ñi bëgg sonko dëgg non non non ñom duñ dem télé ñu nga tok rek laal la xaar mu sel mi joxe ndigal rek ñu tek élection jot ñu waxu wotel ko mu wax ñu déglu ko buñ paré jëfé ñi ñoo bëgg sonko mais ku ngeen gis muy wax ci sonko wallahi bëgg mu am ak nu mel rek motax gëmu ko bëgg ko ndax kat kenn du informé wu xam li war a xew di bëgg sonko ci man du ko ñu war bëgg politiquement ku ñu war a contrôler la mais nag boo xoolee sa intérêt gis na Macky Sall la jàppale ko dafa jafe tudd ko du la faale ah day ñàngal rek di fuuxur fuuxuri you know ñeneen ñi doo leen bëgg a gis mais Sonko boo ko tuddee benn waaye yónnee la san euro te xaalis nga bëgg da ngay tudd Sonko mais wallahi Baara Ndiaye ku ko noonu Sonko ak Macky Sall ko bëgg a joxee mu ne Macky Sall mais ci Sonko la mbiram di doxee Mara Niass mi nga xam ne tekkiwul dara dara dara dara dara dara tok rek nan takkaayu na ci mbiru Sonko Mara kan la meuna influencer mun ta créer sa 5 euh, vote yu bax koku lan la meun lu muy du ci Sonko mais comme arnaque ne ba mbiram doxut mu ñew rek wat nan waaw Cheikh Ahmed may parce que Sonko la la non non mo jël suma vidéo suma image tek ca wax luma neex te suma làmmiñ nekkul suma poste man ku jël suma avance neex beure nakari beure patriote daw di dem maara maara maara mais Sonko soxlawul marche maara quand même il faut arrêter maara muy volé di tëdd ki caga bañ koy sàcc téléphone am maara muy góor jigéen te ñuy tuumaal Sonko góor jigéen buroo maara demaat mais link boobu baaxul man dama doon campagnal benn nit ma décorer ma décorer ko benn kilifa ma ne ko su teelee wax nga ñàkk da ngay bàyyi bañ na suba la élection mu ñëw kilifa ba ñëw dëkk ba wàcc dafa am élément yoo xam ne soxlawoo leen léegi waa Pastef fi dañu war a taxawaat ci defaraat image su Ousmane Sonko nit ñi gëm neen ne u fitna la gëm neen na fenkat la gëm neen ne njaaloo naa ak Adji Sarr bien vrai que den gëm ne violé wul ko gëm neen ne du nit ku juste gëm neen ne waxam day dajjeeku donc lii la Pastef war a defaraat mais di ci yokkaat ñu mel ni. ay ay ay ay ay mara oh my god dafa dafa dafa lus quoi franchement dafa lus donc lirik rek la amone pour wax hmm? ngeen ngeen ngeen xoolaat seen bopp bu baax baax te ne wax dëgg yàlla ah yalwaan bi mu ngi waaj a këpp de hmm. yalwaan baa ngi waaj a këpp de ay li xam jeu politique ak tactique politique biñ teg nii xajul ci ñent Ousmane Sonko waxuma laak ben mbeuri dañuy gëreum ay serigne ak ndangam me ñi japp ci combat bi yeb jégué ko ba melni ñu ngi and ak mom ay service lañuy dox bu jéxé rek bu match bi jéxé rek ñu jéxna kon suma garab yi ñu ngi fi di gëna baax àndalaa doy war 10000 regu, mo koy guddal ak réyoon 60000 rombati ñak la yexati ñak ka leen jënd ngeen degeural awra yi ngir ngeen mëna sey bu baax mang don garal ay kaddu yi di ndokale juliti ci gam gàmmuwaat gi di leen wax ne yal na leen yalla defal jam, manit yalla defal mako, yalla defal leen sutura te defal mako. maa ngi wax ne su fekkee nga doon seetaan nga bëgg ma nga am ci man cofeel jërëjëf bu fekkee ne dama laa métti neexuma la safuma la da ngay muñ te ñaanal ma yàlla wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh